soñ bu nag ginnaaw loolu promoteur la woon boo xamante ne ci làmb bari na événement yoo xamante ni tey bu ñu koy fàttali ci làmb du jeex événement yu neex ñu seet si ko ngir waxtaan ak moom lu baree bare ci làmb ci moom soñ bu li tax ñu gëj a gisee fan la nekkoon lan moo tax mu bàyyi làmb loolu yëpp dinañ ci waxtaan soñ bu maa lay nuyu di la siyaar. maa ngi lay fay eh, sama sëriñ di la delloo ziar bu bari bari bari di nuyu bon ñi seetaan site bi yëpp. xam nga di ñëpp di am kontaan trop seen teewaay ñaan ñi def émission yu neex émission bu neex luñ fiy wax mu am njëriñ ah waaw ñu lu am njëriñ daal jërëjëf. sooy bu promoteur làmb nga lan moo la dugaloon ci làmb. bon làmb lu ma ci dugaloon mun naa ne ay xarit ñoo mu ci dugaloon àndandoo mais en même temps aussi cofeel bi mu amoon ci làmb loolu moom moom mu dugaloon ci lamb mhm, loolu moom mu ci dugaloon def nañ ci nag def nañ ci dara am na lu ñu fi def. parce que bëri na fi ñoo xam ne tey bokk na ci ñu génnee donc commencé woon nañ ci ay mbapat dem Iba Mar commencé woon di sori extra extra dem ba benn moment mënatuñ dem après ñu bàyyi. Mhm, waaw. Euh, bi nga dugg see ci làmb yan événement nga njëkk a tëgg stade Diom Iba Mar ak yeneen làmb. bon tëgg na euh, fii ci stade bu parcelle bi ci banlier bi am na nu moo fi def làmb tëgg stade bu Yoff stade Iba Mar maa ngi fàttaliku Santa ñi ngi Diène Kairé su ma juumul maa ko njëkk a fii ci stade parcelle bi donc bëri na daal xam nga affaire dafa xaw a kii tuuti presque léegi def na 10 ans moo tax du mun a jàpp yëpp sama bopp te moment bi du nekk si bopp bi dafa bëri moo tax ma xaw a fàtte mais xam naa ne Yanda Santa ñi ngi Pape Cargo Pape Pape Pape Cargo ak euh, jàppatuma ko daal mais def nañ ci ay événement def nañ ci ay événement daan nañ tuddee ay drapeau Mbéjee fay Fatou Guéwal Ah, ak euh, Adja Daaru Mbaye tuddee nañ ko fi drapeau suma grand maam Mbaye ñaa bon bari na ay événement yu bari def nañ ko. Mhm. léegi lu mel noonu événement yu mel noonu son yi bu organiser ko ci làmb ñu jékki-jékki rek gis son yi bu bàyyi làmb lan moo war a reculer bi. waaw parce que mën naa ne peut-être ma ne làmb du sama yëf wala mu ne dama ci duggee duggeen wu baaxul. après mu indil ma ay jafe-jafe financièrement indil ma ay jafe-jafe dem ba ma xam ne lii man mënatuma ko ba dem ba dugg ci benn kàmb boo xamante ne pour ma génnoon ci métti na donc looloo tax ma bàyyi làmb waaw peut ni mu ci duggee moo baaxul mun naa wax ne mu ci duggee moo baaxul voilà quoi waaw loolu loolu moom loolu moom moo ma génnee ci làmb. Mhm. kon duggin bi danga nga ci duggoon en tant que xale bëgg sport bi dugg ci pour jàppale ay xale ba ba mujjee la jural ay jafe effectivement. nii nga wax nag nii la deme waaw par la suite mu jural ma ay jafe-jafe yu méttee métti hmm, waaw mais sant yàlla bu baax a baax waaw sant nañ ci yàlla. Hmm. dañ doon gis d'habitude promoteurs yi dañuy bàyyi làmb mais bu ñu bàyyee làmb teewul ay amateur la ñuy doon di ñëwaat ci làmb ji ba tey eh, di di ci yëngu eh, di ànd ak ay mbër des fois ñu leen di gis ci alentouru làmb mais sooy bu gisuñu ko réer na raar na jafe na gis lu waral loolu. xam nga mën nag du ma man lu nekk ci man rek laay wax te itam am na loo xam ne leen li jaru ko waxuma dama bàyyi làmb amateur laa parce que dama ko bëgg damay seetaan mais ci cadre amateur ci amateur laay yem bis bi jot bu ma yoree sama njëg lu ma daggee loge ma dem dagg loge soxlu ma sax ñuy jël sama carte yooyu ma dem dagg loge toog seetaan damay seetaan bu paree ma dem ndànk ñibbi sama kër di lii laa am ci làmb moment yi waaye tëgguma hmm, jegewuma fu ñuy tëggee ah, ànduma ak mbër mais ñeme naa nekk amateur ñeme naa dem seetaani làmb loolu moom ñeme naa ko peut-être bu wérante jotee ma wérante ci ñi ma ci war a wérantel kii moo mën kii lii moo ëpp jàmm ci man moo tax foofu laa yem. ban combat nga mujj stade. mujjee dem seetaani stade jàppatuma ko mais xam naa ne euh, stade Iba Mar Diop la woon dama xamul defe naa benn saison bu doon tijji la daal période avant Balla Gaye Eumeu Sène bu mujj bi. non astafurlah Balla la Eumeu Sène laa mujjee laa mujjee stade waaw Demba Diop boobu la mujjee teg sama tànk stade Demba Diop. sooy bu na vraiment bàyyi nga làmb quoi te warul demee noonu yow si lu nit nga sooy bu war a bàyyi làmb. non bàyyiwuma. bàyyi nga sooy bu da ngay nëbbatu mais bàyyi nga. ma mais dama ko tàllu loon rek dama ko tàllu loon dama ko taluloon maa ngi nii tal naa ko macha allah bi nga ñëwee seet si ma toog naa waxtaan ak yow parce que tal naa ko mais taluma ko woon mais bàyyiwuma làmb donc làmb du ma ko bàyyi parce que dama ko bëgg ba pare déjà moom du ma ko bàyyi voilà. Mm. ñi jékki-jékkee reculer ci làmb ñi nga xamante ne jege woon nañ la wala ñi nga xamante ne bugg ñu woon nga bàyyi nan nga ko doon yëgee nan lañ doon wax. am na benn moment métti woon na trop parce que am na moment boo xam ne gisatuma kenn ñëpp dem bàyyi ma mu wét ci ndum ñi nga xam ne ñoo ma daan. boo gisee lu tax may wax lii dama koy wax pour jeunes yi nga xamante ne tey ñu ngi doog a départ di dugg ci yenn yi même bu dul làmb rek dama koy wax pour jeunes yi nga xamante ne ñu ngi door a dugg door door door a dugg ci àdduna. ñu tijjil seen buntu wërsëg pour bu baax ñi xam fu ñuy teg seen tànk moo tax may wax yi tollu naa moment boo xamante ne gisuma kenn déggatuma kenn mën naa daan toog sama téléphone da doon yendoo sonné mun naa toog ci journée bi ñaar ñett appel laay am. te samay mbokk lay doon wala sama waa kër. da sa bopp di xool ba xam kii téléphone bi nu mu ne ba xam ni ngi dox mu métti woon trop nekk guddi yu métti métti métti passage ma ciy gërëm bu baax di ci sant lool sama yaay ak ak itam sama soxna ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne mosuñ ma bàyyi ak ñi ma bokkal ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax toll naa jamono joo xam ne ñoom rek laa doon gis hmm? ak itam jàmbaaru fàkk. tëdd bi nga xam ne moom laa yàgg wax muy sama baay waajur wu góor bi ma jur nga xam ne tolloon naa jamono bi nga xam jamono joo xamante ne xëy na gaynde gi ne ci moom ji koy gaynde gi ne ci moom mu bu ma tàggatee sax xëy na amaana moo ñu dimbali ci yu bare bare bare bare moom it maa ngi koy gërëm di ko sant di leen ñaanal ñu yàgg fi lool ca wér mais daal mooy li ma la wax léegi da ngay toll guddi yoo xam doo gis kenn doo dégg kenn ñi la daan forcé booy dëggal kii ak kii combat ki ak kii kii lii la wax fay ko baax na dugg ci nañ def lii ci événement bi nañ def lii di la dugal ba nga fexe yow làmb ji mel ni tuwaarkàll ba nit ñi kontaan mais après du la jariñ dara ñëppay dem bàyyi ngay commencé rëcc di ñëw moo tax balaa yooyu nag di ci am yam fi mu war a yam rek mooy toog nii yam fi amateur yi yam ku xew la daal ma dem dagg sama billet seetaan promoteur nag bu ñëw seet sama pour ma sponsoriser ko sama entreprise attan ka li ñuy laaj ñu juboo ci dinaa ci def sama loxo loolu moom mun naa ko waaw loolu mun naa ko. Mhm. actuellement nii sooy bo boo dee xool làmb gis ni jafe-jafe yu bari am na ci làmb bari na loo xamante ni war nañ ko mën a changer ci làmb lan lañ ci war a yokk lan lañ ci war a changer. waaw temps nag dégg naa jooytu bu bari na. ndax mooy suivre lamb trop trop mais dégg naa jootu bu bari na mais solution am na. solution am na dafay am foo xam ne boo fa tolloo da ngay arrière dellu ginnaaw ngir nga mën a sotiwaat ba mu baax. lamb dafa jékki woon jékki rek jékki-jékki na fëf màgg ñëpp dugg ci ñëpp di ko seetaan ku yor sa produit boo ko deful ci lamb da nga yaakaar ne du dem mais loolu ba tey mën na am. mais nag dafay des ci ñu mag yi ñi nga xam ne ñooy champion yu mag yi parce que lamb boo xoolee lu muy réeréer ñi ciy jariñu matul dix personnes ñi ci gagné ay cent millions yi matul dix personnes ñoom ñoo war a mën a taalaat làmb ni ñuy taalaatee làmb yomb na mooy dañuy wàññi seen cachet bu baax a baax a baax a baax ndax ñenn ñi ay doom doomi mbëri lañ bu ñu laajee seen papa yi danañ leen wax ne na daan nañ bër daan nañ bëri ci at mi dix fois wala sept fois wala huit fois ci lu ma dégg man xaw ma ci lu bari mais pourquoi pas ñoom ñu def loolu wàññi seen cachet yi ba promoteur bi ñëw di tëgg làmb li muy investir na ci génn bu jaayee bee génn ci sponsor bu dugal benn somb ndaw kay dugal somb ndaw kay dugal somb ndaw génn ci ñu defaraat affaire bi affaire bi mun a màggaat comprendre nga demaat nag ba nit ñëpp joxaat ko bopp làmb amaat lu mu doog a mais fu mu nekk nii nii nit ñi dofatuñu ku fi yor sa benn xaalis bu ndaw benn kenn moo fi yor sa benn cent millions bu ndaw wala cent cinquante millions boo xam ne mooy sa capital nga jël ko def ko ci làmb après jóge ci nekk ci ay problème mu lay toroxal bëri na fi promoteur yi ngay gis fii promoteur yu bëri yi gis buñ tëddee guddi du nelaw ndax ay bor yu metti te ñoom leneen kay def loo duñu xam lan la. man damay yaakaar ne dañ ko tayul wala lan la koo ci gis boppam ma bu tëddee guddi nelaw boppam maa ngi barki maam Serapha li ma lay ci xam lu leer am na ñoo xam ne bu tëddee du nelaw ndax bor yu métti métti am na ci ñoo xam ne sax Covid bi def leen arrangé ndax ñu baña a tëggati wax coow li bari na nii ñuy wax ni mais am na ñoo xam ne arrangé na leen de pour ñu baña a tëggati tooñu ma kenn nag mais dañuy waxtaan donc li may wax yëpp pour man ci solution làmb la ñi nga xam ne ñoo ñoo pour solution làmb pour làmb mën a nekkaat fu mu nekkoon parce que xam nga li ñuy yenn promoteurs yi tamit promoteurs yi di ko yenu xaw ma dañ te tayuñu ko metti na daal metti na na gars yi solution yaa ngi fi du jeex ñi mën a defaraat làmb nag génn ténor yu mag yi ñoom ñoo mën a defaraat làmb ba seen rakk yi ci nekk mën a jariñu fi mu ne ñoom ñoo mën a sauver làmb ñoom ñoo war a taxaw sauver làmb kon nag nañ ko sauver ci ñoom rek la des. parce que tey xam nga boo jëlee ci yenn booy yu bees yi ñii am ay cachet 5 millions ay 4 millions 3 millions ñooñu tey boo jëlee nit ñi xamuñu leen du leen jaral jóg mais tey boo yëkkatee Balla Gaye waa nga yëkkati Modou Lo quatre fois ci ñi ñi bëri quatre fois ci année bi wala yu ñu mel ci ak cachet bu jaar yoon peut-être chaque jour yàbbuma leen mais seen léegi liggéey bi nga nekk bi nga nekk moo ko laaj ku ci nekk jël benn cachet 20 millions peut-être wala 25 millions. def ko quatre fois ci année bi cent millions la fii kan moo fi xëy année bi ngay liggéey cent millions donc li leen yàlla defal nañ ko xam aussi donc wërsëg boobu xëy na ñoom ñoo ko am mais ñu wàññi seen cachet yam ay vingt vingt cinq millions peut-être di ko bëre quatre fois ci année bi entreprise yëpp dañuy joxaat bopp làmb dëkk bi day neexaat parce que làmb tamit dafay neexal dëkk dëkk bi neexaat mel ne lu mu ne riir bi mu bari xam nga entreprise yëpp mën a joxaat bopp làmb lu ñuy gis na làmb yi ngi gën a dem mi ngay gën a bëri coow nit ñi di génnewaat seen xaalis di ko ci defaat ñi ñuy jooy naan ay ona parce que mm, doy na waar kenn mënul wax lépp waaw bu Sénégal lan mooy ndimbalam ci làmb lan la war a mën a jàppalee làmb jàppale ko promoteurs yi parce que bari na promoteur yoo xam ne moment bi ñuy dugg ci moment boobu la ñuy génn yow malgré promoteur nga woon organiser woon nga fi ay événement yu mag mais génn nga ci làmb fi mu toll nii li ma leer ba leer sooy bu ku ko joxoon 500 euh, millions du xalaata ñëw ci làmb est que loolu du tax yeneen xale yi bëgg a dugg ci làmb ñu ragal état lan la war a mën a accompagner promoteurs yi bañ mën a ñeme làmb. non xam nga état li ko war dafa bari. man des fois ngeen baal ma nag sama mbokku mbër yi ak promoteur yeeg yéen ñi ci nekk ñëpp des fois bu toogee di la ñu état état état xam nga état li ko war dafa bari. ñàngum xale yaa ngi fi wopp gaa ngi fi leneen ak leneen étudiant yaa ngi fi bourse yi leneen ak leneen leneen bari na état li mu war bari na te làmb ñi ci nekk ñëpp ay xale lañ. mon cher làmb ñi ci nekk ñëpp ay xale lañ ñoom ñoo mën a defaraat làmb sans état dañ ko defar. coow lu bari li fajul dara moom ay xale lañ tey am nañ kattan kattan googu ñu am nañ ko boole xel mi rek léegi ñu defar làmb ku ne jariñu te ba état état li mu war a def bari état lu mu mënoon def ko état la ñu mënoon tabaxal lijjanti na ba état bi taxaw na mais la des nag mon nañ ko lijjanti suñu bopp seen bopp nañ ko lijjanti seen bopp bàyyi état nag affaire yi bu yàggee day yomb te lu yomb nag baaxul ci góor ah dëgg la nag dem entraînement yooyu yëpp dëgg la mais da ngay toll foo xamante nag da ngay teg xel mi. xel mi ngay jël teg ko ci taabal bi daal di koy tijji mu daal di lay jox lu mun a kii nga daal di kii waaw nga daal lamb ji mën a defaru mais chaque jour état état état état état état li ko war dafa bëri surtout jamono bi ñu toll mi ngi war a lijjanti ay élection fii ñu ngi war a Covid bi fii lii fii bëri na nga bëgg ci boole mbër yi tamit bëgg a jugati yu xóoti dëgg la nag ñu nekk seen ginnaaw bëri na mais nag ñoom nañ wut solution moo tax euh, Tyson xaw ma dara ci làmb nag fi may waxee yow ndax gëj naa ko suivre mais Tyson ëpp naa bàyyi ginnaaw. wallahi yàlla jox na ko xel moo xamante ne buñ ko jiitalee buñ ko tegee seen kanam non dina defaraat làmb man dama mu dama mës a gëm côté boobu ci Tyson. waaw na ko gaa yi daal bu ko gaa yi beddi maa ngi ñaan président chaîne CNG bi man waaw maa ngi koy ñaan mu jël Tyson ah. am waaw parce que Tyson yàlla may na ko ci wàllu woowu waaw yàlla may na ko ci côté boobu te itam am na fu mën a yóbbu làmb daal vraiment. Mhm. sooy nga am ak mbër yi actuellement nii. actuellement amuma benn relation. xaritu mbër. parce que xaritu mbër yi ma amoon yëpp ñëpp dem nañ bàyyi ma <laughs> ñëpp ma bàyyi am na ci ñoo xam ne da doon dem seen kër sax ñi lay daw yaakaar ne da nga ñëw pour àbb leen xaalis wala yu ni mel te ku ci nekk am na fu ma jaar ak ñoom. waaye comme da maa ngi toog nii ba koy nettali maa ngi sant sama borom bu baax di sant itam samay waajur sama yaay yi sama papa maa ngi koy sant lool waaw ndax dimbali na ma bu baax sant naa ko moo tax aw ma am bëriwuma te jëlaat bon xanaa bon xanaa peut-être ñi fi nekkul bu mel ni Brichel yi moom dañu bokk yarandoo dañuy déggante Pape Mor Lo aussi ku am kóllëre la saa bu jógee États-Unis dina ñëw ba fii Cheikh sama Brichel lii tamit même chose nees. dina may woo di ma nemmeeku nees ku am kóllëre la moom it dina may woo di ma nemmeeku ñàkkul keneen ñàkkul keneen koo xamante ne waaye xel may xaw fatu maa jéglu bu dee waxuma ko mais am na ci ñeneen ñoo xamante ne taxul ñu bàyyi ma waaye ñeneen ña nga xam ne daal ñoo doon nekkoon sama xarit dëgg dëgg dëgg te ma xamee ma leen bàyyi nañ ma mutuma ci benn relation <laughs> làmb dafa garaaw doomu aadama vraiment nit ku nekk war ngaa sàmm sa sa nitu bopp rawatina sa nitu démb euh, ndax nag foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu euh, sony bu euh, xam naa ne clients yi ñu ngi ñëw maa ngi téye sa waxtu mais maa ngi lay jégalu bu baax a baax a baax question beneen bi ma bëggoon actuellement nii da ngay gis ci mbëri ñu ci bari dañuy feebar mais balaa ñoom seen jàngoro balaa moo mën a faju rek ñu weer ko comme mbubb bu tooy euh, weer ko diw lii moo ko dal diw lii moo ko dal ndimbal boobu en tant que koo xamante ni euh, doomu aadama nga loolu nan nga ko gisee. xam làmb moo moo bindoo noonu. làmb dafa baaxoo coow. bu njëkkaan sax koo taalal micro nii mu ne la waaw sa c'est normal làmb dafa baaxoo coow mais làmb moo mel noonu làmb mais nag war nañ ci wut pexe nag ndax feebar moom beneen affaire la quoi war nañ ci wut pexe dafa mel ni keroog dégg naa Gris Bordeaux di ko wax xawma chaque fin du mois ñi am benn caisse bu ñuy verser ñii 1000 francs ñii 2000 francs xawma nu mu ko waxee noonu loolu solution bu baax la solution bu baax la ndax nag olof nee na ñu bokk teen ñooy bokk ñooy laxasooy got du noonu la waaw kon nag loolu moom solution bu baax la xam nga def ko ci am benn caisse boo xam ne ku wopp affaire bi ñu am benn association boo xam ne ku wopp mu jël la en charge faj la ba nga wér ndax nag alal dee waaw loolu rek lay jëriñ xaalis loolu rek lay jëriñ wopp faju soxla taxaw nga faj ko yooyu la xaalis di jëriñ donc loolu noonu moom bu ñu ko defalee seen bopp waaw ah, gis naa ne solution bu baax la loolu di naan xaw benn carte membre bu ñuy jaay xaw ma daal lu ko ex expliqué woon noonu ci benn télévision mais lu am solo loolu moom nañ ci jàpp lu am solo la hmm. lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci sa disponibilité mais xam naa ne dinaa la jàppaat ci loxo indiwaat la ci làmb incha allah. <laughs> làmb moom li ma la ci wax rek. yii du ma ko ci weesu si kàttanu yàlla sama borom incha allah li ma fas yéene du ma ko ci wees du ma ko ci génn te itam yàlla bi nee na ma noo xamante ne man du ma xasee ba ne lii rek la ko mooy bu xëy na bu xew bu làmb xewee sama yaram neex moo cest sama yaram féex coono jàpp ma dara jàpp ma mu mën a dem seetaan yi ah mën naa dem promoteur bu am événement aussi ñëw seet si ma mu mën ko ñu waxtaan bu juboo mu mën ko te xam ne condition yi méttiwul te du ma gaañ ma def ñii daal xam naa ne du ko weesoog làmb waa mais kandax ànd ak ay ànd ay mbër lu baax la jàppale am sa mbër jàppale ko lu baax la waaye yooyu moom bàyyi ma bàyyi ko gars yi ñu nekk ci waaw. sama jàngat làmb maak Père Birahim Ndiaye ce que doo ñu sponsoriser accompagner ñu ci émission boobu. non t'inquiète amul problème loolu ñëw ñu waxtaan ci jeex na loolu amul problème loolu moom des na ci yow. jeex na gërëm naa la sant naa leen maa ngi gërëm ñëpp nag lépp lu ma fi wax loo xam ci nekk su dul noonu maa ngi ñaan na ma ñëpp jéggal ndax nag xam nga xel matul ni day juum lu ma fi wax ci lu ci lu ci lu dëngte rek noonu may jégal lu fi wax loo xamante ne mën na jariñoo maa ngi ñaan yàlla ñu jariñoo ko ci ñoom ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk yëfu làmb maa ngi ñaan ñu jariñoo ko maa ngi sant ñëpp di gërëmaat rek samay waajur encore une fois di gërëm nag sama personnel bi ma nekkal fii xam nga waa EKR yëpp comme comme damay bokk seen sponsor ñeme naa wax e EKR <laughs> waaw xam nga sama sama équipe bi fii xam vraiment ñu fonk ma ñoom it métti woon na mosuñ maa bàyyi à chaque fois ñi ngi woon sama wet rek xam nga ba tey ñuy sant yàlla bu baax a baax donc ak marché bi ma nekkal ñu rue yu karo bi fii yëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf kontaan naa. ku bëgg bu wóor kara bu sell kara boo xamante ni macha allah fépp foo fépp foo xamante ni boo ko defee rek sa kër di nes na si ñëwal seet si son yi ba euh, kii bi nu mu tudd. EKR établissement Khadim Rasoul EKR. buri maaram EKR établissement Khadim Rasoul incha allahu rabbi. mois moo nag bu waxtaanee ba jubóo mois de février moom février bi yëpp loo duggal maa koy sponsorisé. xanaa loolu neex na. robb na neex. sant yàlla rek euh, di jaajëfalaat képp koo xamante ni yaa ngi seetaan wasaare làmb na ma ko daan waxee rek saa su ne doolay jën ndox la doolay woykat public la waaye doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi gis naa jàpp bi ngeen ci jàpp gis naa woote yi nga xamante ne yéen a ñu koy woo yéen a ñuy gën a jaajëfal di leen jëfalaat bu baax a baax a baax tey son yi bu lañ seet si woon di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xewu làmb jërë ngeen jëf